en bu tàkkala moolu mboos ma leenu du travail mboos anjeen assemblée nationale

daaw ma indi doléance te tey dama am doléance yu tuuti comme ni ko sama collègue bi waxee day yóbbaale moom bosam day diis ndax budget bi presque jeexal na ko man doléance benn bu njëkk bi mooy ñun Covid bi dafa gën a tax ñun ñu am problème département ba problème mu corbillard catholique yi sa mairie dama fay jaar bu mujj bi sa mairie lañ ma abale damay jaar jàmm gën si kàmbaaw damay jaar Mbambilor damay jaar feneen comme niko paroisse Notre Dame du Cap-Vert amee seen corbillard bopp ñun département Guédiawaye paroisse Saint Abraham ak Saint Jean Paul II ak quasi paroisse Chapelle Saint Augustin ak Saint Jean de Dieu bëgg nañ même boudé ben département mën nañ ko bok ndax période pandémie bi ñeppay ay soxla corbillard mais ñepp xam nañ néewu catholique dina def ay jours dina def semaine amuñu problème nak ci morgue yi muy dantek muy fan muy fenen amuñu problème boobu même ci biir covid bi amuñu problème boobu mais bu amone corbiar ñun ñu jël centre de santé bi nekk diggante gàddaay waaxinaan suñu biir commune la nek centre de santé bu bees la bëgg nañ ko ñu ko équipeel centre de santé Chérif Macky Sall département commune waaxinaan Nimzaat département Guédiawaye bëgg nañ ko ñu ko équipeel centre euh, de santé Rahman ak daru Khan même bu dé ben corbiar soxla nañ ko na nak poste de santé amukaat ñoo nga fa ci période nawet bi dëgg la foofu point bas la saa yu tawee day am ndox mais sonn nañ sonn boo xamante ne yow ñëw nga fa te heure ba nga fa ñëw xam nga ne poste de santé amoo cinq sonn nañ daaru xan waxi noppi ma dellu siwaat ci dalal jàmm ñun de dañ koy tiitaroo ñun département Guédiawaye Sénégal gi sax dañ koy tiitaroo service d'urgence centre bi mu euh, euh, kii bi hôpital bi mënul nekk période Covid bii ñu ne dañ faa am centre am malade Covid yi ñu fay yóbbu man ma feebar man sax ba ma feebaree balaa maa dugg xool nañ ndax war naa yóbbu yóbbu war nañ ma yóbbu pavillon rouge wala war nañ maa yóbbu euh, soin intensifs pour ma dem faju ji du ñu xëy rek ñëw rek ne la dugal bu ñu ne dugalee fekk yow da nga am Covid ñu yóbbu la ca ña nga xamante ne kii day kii daa amee métitu bañ kii am métitu tànk kii am métitu bopp fii léegi kenn wératul nga yóbbu yokkal leen beneen feebar am na ñoo xamante ne dëgg la député du peuple lañu mais nekkul rek boo làmbaatoo fi bañ ne noonu la rek nga tuxu fële ñun ñoo fa dëkk ñun ñoo xam la muy la la ñu dépa la ñu dalal jàmm di jariñ ñun ñoo xam la dalal jàmm di dimbalee dañ daan jóge euh, géejuwaay ba hôpital principal ba la hôpital daan teg mais léegi ñun nekk nekkatuñu banlieue comme ni mu koy wax léegi banlieue lañ nekk kon am na ci ñenn ñoo xam ne bu ñuy wax nañ xoolaat bu baax li ñuy wax président Macky Sall ñun dañ koy gërëm di ko sant waaw am na ko fi ne léegi président lay Abdoulaye du jërëjëf waaw jërëjëf ndax moom carrière yëpp inauguré na ko fu mu wàccee ñaari euh, tonu xeer euh, budget bi nekk 95 pour cent ci ci ci kii lay doon rek ci carrière lay doon kon boo lay Abdoulaye Wade jërëjëf waaw dinañ ko ne jërëjëf euh, AIDB nan la ko defoon wàcc ci kaw grava yi bañ naan suñu maam dina wàcc wala du wàcc kon am na ci yenn yoo xamante ne ñun bu ñuy wax dañuy wax président Macky Sall jërëjëf di wax

xam na mooy kan xam na li muy liggéey xam na askan bi feebar di fa ñëw ñoom ñooy ñan jox na leen cër ba mu mag di gërëm madame gay man géejawaay laa yem de di gërëm madame gay di gërëm faama ñi di gërëm suñu DRG di gërëm nag Alphonse Thiaw duma ko bàyyi duma bàyyi madame Xemes